tàmbali kon euh, rubrique yi comme nañu koy defee nag vendredi bu nekk ak décomplexé jàpp sa fula euh, sànq ñaatam euh, wax na ko on va aller à la rencontre de Lat Deguen Mboup jenn ba comme ni nga ko waxee rek dañu doxantu dem Parcelles Assainies unité 18 fekk fa jàmbaar ci décomplexé dellu siwaat waa Sénégal salaamaaleykum waa euh, Afrique partout dans le monde maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar maa ngi jaar UNEFJA euh, fa laa defee sama euh, sama primaire après ma dem Amadou Koli Diop ma jàngee foofu mhm, ba troisième après ci laa dem tunisi def fa formation 2005 2006 en fait Pape Mor Ndiaye directeur des collectivités locales moo mayoon billet d'avion bi ba ma paree Tunisie maa ngi nekk hôpital Matlaboul Fawzeyni bu Touba 2009 euh, 2010 ba 2011 après ma nekkoon hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène maa ngi léegi Dakar di góor góorgóorlu di liggéey di daan sama doole di jaay maa ngi si maquillage yi maa ngi si yére góor yi bàyyu ma dara daal sama benn càmmeñ moo ma jàppale jox ma benn somb yam na ma liggéey si ak sama benn doom bu nekk France jox ma ay maquillage na ma tataa dee si jàppandi di liggéey maquillage yi damay dugal statu wala ma def ci Facebook bi xam nga léegi ñaatam kenn yoratul sa saak di jaay su ma dugalee vraiment nit ñi dañuy jënd si su ma mee dina baax su ma mee place dina baax parce que ñun handicapé lii arrangé wuñu ñun am sa place bu baax di liggéey def naa alphabétisation un an maa ngi ko defee formation bi Mbàkke foofu laa ko defee standardiste bi ma jàng am naa ci diplôme instant bi ku ma jël ma liggéey parce que man ñun ñun ñun non yi standard rek lañ mën a liggéey daal jaay bi dina métti ci ñun dina xaw a métti ci ñun mais dara da nga koy gëm rek da nga koy gëm mais ku ma jël standard moo ma taneel parce que mënu ma tàll sama loxo di ñaan mënuma ma tamit ku nekk mën a la may ma te may la jën jàngal la nu nappee moo ko gën daal jigéeni ñi handicapé yi wax dëgg yàlla macha allah ay liggéeykat lañ mais am na ñoo xamante ni nii tamit dañu toog noonu comme ça complexé bëgguñu génn mais léegi daa mel ni mi ngi démystifié wu ndax macha allah handicapé yi léegi ñu ngi ci bureau yi handicapé yi ñu ngi ci seen i indi handicapé yi ñu ngi fépp daal. léegi macha allah euh, wax dëgg yàlla bareetul daal ñu bëgg nag ñëpp ñu fas jom def nii xam nga di liggéey ñàkk daan doole bañ soxla daray góor teel a xëy guddee wàcc rek. maa ngi remercier kolos sama càmmiñ bu ma nekkal 18 ba ma nee salaamaaleykum 18 vraiment moo ma jàppale kolos yàlla na ko yàlla yëkkati vraiment maa ngi koy ñaanal di ñaanal ñaatam bi nga xam ne moo fi ñëw. ñaanal sama waajur yi ñaatam su may wax ci sama waajur damay jooy sama yaay dafa jàppale. ndax su ma teelutoon sama doom yi du ma mën a ñëw fii sax bay liggéey sam papa tamit dañ ma jàppale buñ ma tëjoon na ma doo dem ndakaar ba fa demee danga fay bon du ma fi ñëw sama yaay moom ma jàppale moom ma secours dama koy ñaanal Diouf Ndakharu yàlla na ko yàlla taxaw yàlla na dund ba gis ay ay sët sëtaatam ñaanal sama papa ji ma jumbu maa ngi koy ñaanal bu baax di ñaanal pa monsieur Dieng mi nga xamante ne nii moo tax ba sama papa yóbbu ma INEFJA ak sam papa maa ngi ñaanal ñëpp. di gërëm ñëpp di gërëm sama mag gi di gërëm yëm Mbàkke mi nga xam ne soo ba tey mi ngi fi ñëw jaan bu ba jaal ci am sama doom baay bi sës ci man rek bu ma ko woon mu ne ma damaa jàppal damay togg añ kon dinaa jaaxle trop ñaatam yaa tam sama xol moo jeex gërëm ñëpp nag ak sama waa kër gi ma nekkal fii seetaan nuñ ma benn yoon ñoom mat yi ñoom ñëpp gërëm naa ñëpp ziar naa ñëpp kontaan. Euh, voilà c' est c' est très très très parce mm. que nga am handicap nangu ko mais aussi euh, voilà am force liggéey am force euh, kon daal di def face à la vie. je mm. pense que du lu nga xamante ne lu yomb la ñaatam. du lu yomb juste wax téléspectateur yi tax li tax mu jooy du sax li nga xamante ne moom moo ko dal mooy mooy yàlla muur ay bëtam. Mm. mais li tax mu jooy nee na yaayam daf ko jàppale te xeebu ko benn yoon nee na dañoo dem ba euh, doomu ndeyam yi nga xamante ne ñoom la nekkaloon ci biir kër gi euh, dañ ko doon wax ni que sama yaay daf lay faral mm. tout le temps lu mu def noonu la dañ koy gindi euh, toppatoo ko maanaam surveiller ko ba nga xamante ne xale yi sax dañoo demoon ba defe ni moom ci boppam moom lañ gën a favoriser que ñoom kon ñu koy gërëm di ko sant la déggen boobu di wax nii rek standardiste de profession Dieynaba mm-hmm. jaar na école INEFJA jaar na Amadou Kouli Diop jaar na dem na également Tunisie mm-hmm. def formation ñëw ñëw euh, dem na euh, Matlabul euh, Fawzayni dem na fa comme standardiste liggéey na fa 4 ans waaye bi mu jógee foofu également dem na hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène moom tamit foofu nekkoon na fa standardiste waaye jamono ji may wax ak yow liggéeyul fenn donc moo tax ay mbokkam jox ko li nga xamante ne mooy maquillage mhm. am koo xamante ne également daf ko jox benn somme bu symbolique mu jënd ci ay yére góor di ko jaay biir këram gis nga table ji mu def noonu ci seen biir hall la ko def doo am sax mhm. ci bi technique donc euh, mu nekk loo xamante ne lu xaw a difficile la mm-hmm. mais gis nga ko jongama la mu ngi ciy jàppandi nekk koo xamante ne également ku jàpp fullaam la mm-hmm. euh, ku jar a jàppale ndax nee na bu amee boutique dina liggéey waaye tamit di wax mbokki ne ñu mel nii euh, dañ leen di war di intégrer ci mm-hmm. entreprise yi nga xamante ne ñu ngi fi di soxla ay standardiste parce que comme moom jàng na ba liggéey loolu ba am li nga xamante mooy diplôme am war nañ koo mën a seeti nag jël ko mu ñëw daal di def li nga xamante ne mooy liggéeyam comme Dieynaba loolu lañ leen andiloon tey ci seen rubrique jàpp sa fulla en ma euh, li ñaatam wax rek jàppale bi c'est c'est dafa am solo ndaxte yaakaar naa ne jullit lool moo war a nekk euh, moo war a nekk euh, yëg-yëgam moo war a nekk li mu war a def. loolu la ñu yàlla digal. ñaatam xam nga moom su am solo yi la indi. Mhm. yàlla moo wax ni na ngeen ci seen biir. wa taawanu alal birri wa taqwa. Mhm. waaye taawanu alal ismi wal udwaan. Mhm. mooy yéen jullit ñi yéen laay waxal. na ngeen dimbalante ci seen biir waaye bu leen dimbalante ci bàkkaar waaw te it koo gis nga def ko ni ci sa ni sa bopp def def toujours ma la ko mooy mooy def attadaamun mooy tampon mhm. ñu ni attadaamun law ñu mi ne taawu ni jàppalante googu nuy jàppalante tampon googu meloo la ci dimbalante waaw meloo la ci dimbalante mhm. kenn bañ a xeeb kenn ndax kenn ku ci nekk xamoo ni la yàlla sàkkee mhm. kenn ku ci nekk xamoo lu la yàlla mooñaale kenn ku ci nekk ci ñu nit xamoo suba luy xew waaw lii xew suba ak fi ngay mujjee suba yàlla képp moo ko xam moo tax nit ñi di ñaan sutura yàlla hmm. am sutura àddina waaye amit sutura àllaaxira hmm. waaw boo amee sutura ñaan ko yàlla yàlla di la suturaal ngay gudd fan mu lay suturaal ba nga génn àddina hmm. waaye ñaanal yàlla it ëllëg yow mal yàlla suturaal la mais lan moo tax tout le temps ñi nga xamante ni dañoo dund ak handicap il faut ñoom ñu ñaan par exemple mu nekk directeur société yi wala nguur yi pour mën a ndax euh, xam nga Sénégal dëgg-dëgg nag ñoom. Ah. Euh, bu fekkoon ñi nga xam ni euh, dara daru leen ni ñu leen boole ci société bi ñoom dañ leen a ginnaawal te loolu jaaduwul. Mm-hmm. tey boo demee boo demee bitim réew am na foo xam ni. boo fa gaaree di nga am problème. Ah, parking yi ñu réservé la ñi. loolu amul loolu de gisuma ko ci réew mi. ñu ngi en fait de léegi nii ci construction yu bees yi ci infrastructure yu bees yi ñu ngi koy ñu ngi koy def parce que léegi par exemple boo demee aéroport euh, fii ni ay AIBD puisque lu lu lu lu lu lii la lu bees la boo demee di nga gis ne am na ay parking yoo xamante ne dañ ko réserver euh, ñi ñi euh, dund ak laago ak laago am ajajëre ba am na ñoo xam ne mënoo wax a wax a wax ba nu yalwaan mm-hmm. du nu yalwaan mukk bu nu amul lu nu lekk du nu yalwaan te ay laago lanu mm-hmm. am na ñoo xam ne nag ay gor lanu mais faw nu yalwaan mais am na ñoo xam ni ñoom munoo wax a wax a wax ba nu yalwaan. Mm-hmm. moo moo abi abi woyoon na ko ne gor rek a sonn. Mm-hmm. yal nañu yàlla yokk sutura. waaw munul ñaan munul yalwaan. Mm-hmm. munul xaw ma rek mu ni gor moo sonn. kon ñooñu Adja Dieynaba euh, war nañ leen a gën a taxawu. xam ni ay nit lañu. te mbindeef yëpp njabootu yàlla ñu. te ki ci yàlla gën a bëgg nag mooy ki amal nit ñi njëriñ. c'est important jërëjëf euh, oustaz euh, Pape Anne merci ñaatam ci rubrique bi nga xamante ni indi na ko tey nag Hijab Day.